Papa Sow maa ngi lay ziar. lii delloo ziar buur. papa amati na bés ginnaaw bi mu jigee ci diggante ak Ama Baldé te ki ngay bëreel ku ne xam ne ni ci mbërëm expérience yi mu jot a bëreel yëpp combat ci bëri daf ko raté bennum zos la ci bëreel dóor ko mu daanu est-ce que lu challenge pour papa. waaw bon ku xam ne Papa Sow combat bi mu jëm ni ndam rek ko arrangé pour relancer waat carrière am quoi may bëre nag bëgg may bëre champion la champion waada la. bu jugee ñëpp jóg kon kooku mbër la am na ginnaaw am lépp mën a bëre mën a xeex doy ni mbëri toll waaw kon combat la waaw. est-ce que toll na ni mbëri toll quoi. ah waaw non Siteu ba ndawoon ak Siteu bi bokkul de si gëj naa tuuti de buur si gëj naa tuuti de Siteu mbër la de mbër moom boo demee deux mètres yu manqué di def bëri ko ah, doo tuuti doo de wax dëgg yàlla ah. mais est-ce plan de carrière bu normal bu ko war a mën a permettre mu yegg ci yow. am na ko. mais prouvé na ko yow buur géwél gis nga daaw si ta Ama Baldé taxaw na fi wala taxawoo fi. taxaw na fi taxaw na avance bi dem ñu delloo war kañ ngay wax am ñu nangu ñu nangul ah si ta li ñu soxla si mbir mi ngi si moom. mais mais dafa mel ni dafa am influence moom bu muy bëree moom Siteu. influence comme. ci wàllu public. waaw mais bon mbër yëpp loolu la ñaan yàlla li Siteu am noonu ak ay ñeneen mbër yu ko am loolu la ñëpp ñaan yàlla boo jógee ñëpp jóg. boo wootee ñëpp wuyu la loolu benn benn plus la ci làmb ci sport wala ci àdduna muy politique muy leneen boo dee boo jugee ñëpp jug rek am nga plus. Ya. papa soo war a defaat beneen sortie eh, sans écurie face wala avec écurie face.

te ci benn écurie la ñu ko xamee guddi yu ñu toll ñooñu xamatuñu fan la ñu féetee est-ce que tamit par respect jotul papa gindi leen ñoom ñu maanaam soit que espoir jàpp ni papa mu ngi faas wala xëj na bokk ñu gis gisee mbir yi maanaam ci beneen gis-gis mooy papa soit que nekkatu fa ñu xam ne papa nekkatu fa. waaw li mu leen mën a wax daal moom laa lay waxaat léegi rek la 5 avril incha allahu rabbi dinaa bëri. papa dernière sortie am gis nañu dënn la waxee par rapport à la griffage ba ko ci mel ni père Mbaye Guèye ne noonu papa Sow mi ma xam du moom moo wax tey lii may dégg nii sama nopp. waaw loolu dafa lu fii rek lu ma génnee tey après ko defee ñëpp rapproché ma kenn xamee la lii bul waxee nii bul defee nii ba tax na daal man comme nit nit laa su ma waxee rek ñëpp ne ma Kongo. ñëpp ne xale bu yaru baa ngi nii kon dara duma jaral tey may wax loo xamante ni lu ma yàqal la àdduna jaru ko

papa ci waa parcelle lay compter. non écurie Fass booy Fass yi booy dëkk Fass population Fass dañuy def chaque combat su ma waree bëre dañuy def ngan di convoi jugee Fass mooy waa Fass yi waa HLM bi ñoom Malick ñoom Pambay mafia bi yëpp def mafia bu mag ñëw parcelle ne ma ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi ñibbi ba suba dem Esat nee bii mooy raw bii dinañ def mobilisation bu ëpp loolu ñeenti yoon maa ngi leen nuyu bu baax a baax waa Fass Medina Colobane Gueule Tapée seen doom a loxo yi ñëpp ba est-ce que papa tey waruñu mën a compter tey ci moom. li Fass yi dund mën a jeex. mooy lan ñu compter ci papa tey pour mu defar retour dem seeti ay magam recoller waat les morceaux par rapport doomu Fass la. waaw ah, man doomu Fass laa. man doomu Fass laa. maa juddoo Fass. waa écrit Fass ngénte ma ngénte ma biir kër biir seng-seng Fass biir ngéwél ma nan fa ngéntee ñëpp ñëw teew kon man kenn mun maa génnee Fass. le cinq daal bàyyi dem ba dama tuusal lu neex ñu fecc incha allah waaye damaa lay tuusal ah yow it da ngay laaj